di leen ñee ci waxinu wolof ñeet ak iñaane bokk ñu ñee dangay gis nit ki mu ne ci lu baax nga bëgg lu baax loolu yàlla defal la ko kon la ñuy wax ñee su dee ci arab al lañ koy wax bokkul nag ak xasad mooy iñaan kon ñee nañ leen ci jëf ju baax ji ngeen di jëf di ñaan suñu boroom yàlla na nu ñun tamit dimbali ba lu ngeen def lu ni toll ñu mën ko di leen ñaanal lu ngeen mën yéen ren yal na ngeen mën déwén lu ko ëpp yal na suñu boroom defal leen faju ajo àddina ak alaaxira lu ngeen jàq yàlla bu ngeen ko gis lu ngeen xemeem yal na leen yomb te barkeel di leen fàttali numéro téléphone bi nga xamee ne ci la ñuy jokkoo muy 77 634 06 68 bala ñoo dem ci suñu waxtaan ñu ndokkeelaat leen ndokkeel leen ndokkeel ci at mu bees waaye di indi leeral tuuti ci taxawaay bi nga xam ni moom ngeen am ci vidéo yi am ko ci chaîne bi ndax am na mbokk yoo xam ne yii dañu lay yónnee message ñii di la woo di la sant di gërëm di ñaan di wax njëriñ yi nga xam ni moom lañu gis ci video yi am na ñu ma ci jot a tontu kàddu gi am na ñu ma ko waxagul kon na ko ñëpp dégge fii li may wax mooy video yi man maa koy def dëgg la waaye li ci nekk ci njëriñ yéen a ko ci def ndax bu amee njëriñ tamit ñi ko soxlawoo ñoom la amal njëriñ mën nga ni jamaa am na njëriñ am na valeur or am na valeur fasu naaru góor am na valeur waaye seen valeur boobu suñu ko amee da leen da leen a yóbbu fañ leen xamee ak fañ leen soxlaa jamaa boo ko yóbbu tey jii ca amazone yi ci indigènes ya nga xam ne duñu soli yére di lekk ay meññeef di napp di lekk di rëbb di lekk boo ko fa yóbbuwoon woon du fa am benn valeur kon loo gis mu am valeur rek dang ko gaaral ñi ko soxla waaye dang ko gaaral ñi ko xam kon vidéo yi valeur bi mu am yéen ñi koy seetaan te mu neex leen yéen a ko ko jox da ngay gis góor goo xam ne gii am na jigéen ju ñépp di xëccoo te ku ko ko joxoon bëggu ko gis moom ndax la la ca ñooñ a gis moom la xoolul moom ci jigéen kon àddinaa ngi noonu yéen ñi de yéen a ngi aimé di partager di commenter commentaire yu yiw ndaxam am na moos vidéo boo xam ne bii aka bari ñu ko seetaan am ñu mu neex du ca ñàkk kenn koo xam ne kii la ma wax doonte day doon dëgg gu landi du ko neex ba mu jaral ko muy wax kàddu gu joonu kon àddinaa ngi noonu ndaxam am moos léeg-léeg sax ma xaw a tàyyal léeg ma dem ba yàgg sax bëgg a bàyyi ndax nag jot gi ma am wax dëgg yàlla doyul te it léeg-léeg liy gaar ñépp di ma gaar yaram wuy sutante ay problème mu njaboot ay problème mu dëkkandoo ak yeneen ak yeneen waaye daara jii dong doy na ma problème ba lu ma ca boole rek mu metti ci man waaye am na ñaari yëf yoo xam ne yii ñoo ma naan continuer jógal taxaw mooy bu jëkk bi man je ne suis pas de la fuite en avant duma daw sama responsabilité te suñu borom tabaraka wa bokk naa ci ñi mu joxoñ joxar bi leen ne leen waltakum minkum ummatun yad'una ilal xayri faw mu am ci yéen ñuy woote lu baax ma bëgg a bokk ca ñooña ba su ëllëgee suñu boroom boole ma ca ñamuy fay kon loolu moo tax moomuma ci sama bopp rahmatullah alayhi dégg naa maam abdu mës nañ koy wax coono bi muy daj fekk boobu ay atam mayeetu ko ko wéram mayeetu ko ko nee na ñu ko koy wax di ko ko wax ba yàgg mu ne leen su ngeen ma garantee ne su ma toogee ngeen demal ma tuyaaba jama ca doon am danaa continuer di ko am ma bàyyi leen ngeen may demal kon kooku xamoon na njëriñu def devoir ci société loola moo ma ci dal mooy bu jëkk bi bi ci toppit nag mooy miinanteeg yeen yàgg ak yéen ba am fu ngeen ma teg ma teg leen fa ba nga xam ne mënatumaa tas seen yaakaar ci lii ñu ànd di ko def ci réew mi di ko def ci diine ji di ko def ci ngor gi moo tax lu mu metti metti rek ma waslu ci àq waaye léeg-léeg duma ko sax tal wax dëgg yàlla parce que nag yu baree ngi ci sama kanam yoo xam ne yi mayatuma lu baree bare bare bare yéen nag li ngeen ne ci bëgg lu baax xemem lu baax ba bu ngeen jógee di wër vidéo bu ñuy wax diine bu ñuy wax réew mi bu ñuy wut ak njub loolu nag ngeen xam ni moom itam tànneefu suñu borom la yàlla moo wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam innaka laa tahdi man ahbabta walakin allah yahdi yahdi man yashaa kon yow Muhammad mënuloo jubal ku la neex man maay jubal ku ma neex kon yéen ngeen jàpp ne yàlla moo leen tànnal boppam def ci yéenug njub ba ngeen dégg lu baax ne sami'na wa atana dégg nañ ko daañ ko topp ndax am na keneen koo xam ne bi mu ko déggee moom saaga la ca teg kon nga xam ni kon suñu borom moo leen dimbalil boppam ba ngeen bokk ci ñi nga xam daf leen a tànn ñuy wut lu baax di xeeñtu lu baax di gëstu lu baax di topp lu baax kon ñu sante ko ñun ñépp suñu borom mi nga xam ne moo ñu boole ci lu baax saa yu ma génnee ay wax ngeen déglu ko topp ko seet la leen ci amal njëriñ ngeen jàpp ko léeg-léeg mu am xëy na ñoo xam ni na ma ko waxee du noonu wala boog ñoom gisewuñu ko noonu su ko defee loolu mooy àddina loolu moom du divergence ndax boroom xam-xam yi gën a kawe sax am na ay tomb yoo xam ne yii dañ caa wuute yàlla na fekk nag wuute ga kay indi ak wuute moom mu indi dalil bu wér loola su amee benn problème amul boo indiwul dalil it d'accordal naa la ko parce que yow loola la yow la engagé ñàkk ànd ak samay wax kooku yow la engagé man daal li ma wax laa xam la ca des nag sama yoon nekku ca li may àggalee sama kàddu ci loolu mooy di leen soññ ñaax ci ñi nga xam ni yàlla dogal nañu fer ijji ci benn lang bu mu mën a doon muy français muy beneen langue di arabe ngeen góorgóorlu ci di liir lecture mooy léppi doomu aadama daanaka léeg-léeg nga yëru kayit te fexe ba la nga cay yër nga jéem koo jëriñoo te boo ko jëriñoo sax mën koo yaatal loolu maa ngi leen ciy soññ bu baax ndax nag mi ngi mel na kuy luy waaj a xewi waaye ña jaaroon ci formation yooyu tey jii ak ku mën a nangoo ku mën a bañ ñoom ñoo fi mën ndax nag lecture mooy tukki lecture mooy jàng lecture mooy gis lu bees dégg lu bees wala xam lu bees lecture mooy fekk nga wéet mu wéttali ko wettili la lecture mooy fekk ci yow ay gaarit ay feebar wala ay naqar wala ay njàqare wala ay jikko nga liir loola am lu mu dindi ci yow lecture mooy fekk koo xam ne kii dafa gëlëm dafa réer dafa umpale mu ubbil ko bunt ye ba nga xam ne day gis yoon wa muy mën a jaar kon nag ñu ngi leen di soññi tamit ci lecture ngeen gën ci góorgóorlu dëgg la temps bi mayeetu ko téléphone yi yàq nañu nit ñi fichier pdf yi yàq nañu waaye mu ngeen am cawarteeg livre bu ngeen dégg mu jaral leen ngeen commandé ko rawatina ñi nekk bitim réew foofu la gën a yombee bu ko defee ngeen am ko jëlal temps boo xam ne bii rek même boo mënta liir benn yoon mu jeex ngay liir di jël sa bant di ca dugal foo toll nga xam ko soo dellu si waatee liir bu ko defee loolu dana yokk ci xam-xam yi lu baree bare bare bare bare ko defee ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen feddali suñu kóllëre rek suñu cofeel di leen ñaanal fu ñu toll di sàkku seen ñaan loolu doy na ci ay wax ci lu loolu bu ko defee ñu dikk ci suñu tomb bi nga xam ni moom la ñuy daaneele tomb bi lu gàtt lañ ciy wax mooy li ñu wax ne ay nit ñu ñu ne wala boog ñu ne benn ci ñi bëgg a def élection ñu wax ne seen tour nekkul ci fichier bi muy lu ma jaaxal lool muy lu ma ëlëm lool su fekkee ne kii dem di wuti parrainage moom xam na yan norme lañ ko jox mooy lan carte d'identité nationale recto verso ca kanam ak ca ginnaaw nga dem jël information ya ca nekk nit ki su fekkee ne dafa am carte d'identité nationale su wërta mën a voter soo wëlbatee carte ba doo danga ci am lu la leer kon xanaa moos doo dem jëli koo xam ni ki carte d'identité am ca ginnaaw wanewuñu ne mën naa voter nga dem di ko dugal ci say liste ba pare te xam ni kooku risque la ci moom la mën laa sonal kon nan nga mën a gisee nit koo xam ni ki turam dafa nekk ci carte d'identité bi euh, da cee dañ cee wane ne carte électeur am ci ginnaaw ñu bind ñooñu ñu dem ba ca cëppaandaw la ñu ne ñooñu nekkuñ ci liste bi kon li ma waxoon ci liste bi démb waxoon ko daaw ak daawi jéeg wax ko at yële ca ginnaaw moom mooy dellu siwaat tey jii ñu gën cee war a mën a bàyyi xel list bii moom mën nañ cee dem élection parce que bërëb la fa ñuul la fay ñag waaye man ma ci biir ma ci biti ku falu nag damay jàpp ne rek ah, réew mi loolu la ñu décidé waaye man kuñ ci fal sax daanaka nag damay jàpp ne rek c'est juste une comédie ay caaxaan la loolu moom daal mooy li ma wax ci waxu fichier boobu li may daaneele nag mbokk yi mooy ñun ñii di ay jullit ñun ñii di ay juif ñun ñii di ay katolik waaye ñun ñii kon di ay doomi aadama kenn ku ne ci ñun wër ngaa weet ci sa ruq xam ne say jëf du neen kon wër nañu ragal suñu borom ci suñu diggante mbindeef yi war nañu ragal suñu borom ci suñu digganteek suñuy moroom rawatina nag doomi aadama yi nga xam ni ñoom ngay jëflanteel bëccëg bu nekk mbokk yi même xar boo fekkee ne danga am yéene rendi ko même bu fekkoon ne dafay waaje médd sax lañ la sant mooy boo koy rendi nga wut paaka bu ñaw wut ñu la ko téel téye bu baax nga gas pax wut ku la ko ñàddal ndax boo rendee deret ji bañ a bañ a cas nga rendi ko rendi bu gaaw wax bismillah soo paree nga wax allahu akbar mu yiw te rafet a segam loolu lañ la sant ci bàyyi ma massa booy jëflanteeg ay doomu aadama na yow warloog ñoom respect warloog ñoom considération warloog ñoom yërmande warloog ñoom sutura ndax xam ne jëf yooyu ngay jëflanteeg ñoom du neen mënul neen fii ñu nekk mënul neen fa ñu jëm ëllëg baraana koy gis mu nekk ci mu jëntalug dundam di jànkonteeki jafe-jafe di jànkonteeki fitna ci biir njabootam ci biir alalam ci jëmmam ci gu yaramam ak ci leneen ak leneen ak leneen waxoon naa ko fi ci benn waxtaan àq yu bari rek ñoo lay topp kon nañu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax a baax gën a rafetal suñuy jëflanteeg nit ñi ñi ngay yendool ñi ngay fanaanool ñi ngay yen yeewoo ndool ñi ngay liggéeyee ndool ñooñu ñëpp ku ci ne ngay bàyyi xel ci ni ak ji nga ko yoreel bala ngaa dee di nga ko layoog suñu boroom fii boo demee soo dajeeg suñu borom te jéggalu la ko moom mi nga xam ni moom nga yoral àq ji ragal naa ne tamadu la ëppi buum ci waxi wolof bu ko defee daal ñu yemale kàddu yi fii ba beneen asalaamualeykum wa rahmatullahi wa